évolution parce que finalement mujjee nañu d'accord mais di nga ci def taxaw seetlu waxi tamit ci gegeer gi nga xamante ni moo am entre Ousmane Sonko ak certains euh, gis ni am na coow gu nga xamante ni am na ci wàllum impôt attaque yi nga xamante ni am na ñenn ñi tuddee ko ay menaces entre autres ku ci nekk ak ni nga ko gisee mais nga wax ci def taxaw seetlu waxi tamit ci intérêt bi nga xamante ni jamono ji wala nga def laajte benn question ban intérêt la Ousmane Sonko war a am tey pour affaiblir euh, euh la presse on va terminer par ça. Mm -hmm. euh, donc euh, ñu euh, commencer rek d'abord Moustapha par. Euh, euh, visite bi nga xamante ne le président Bassirou Diomaye Diakhar fay defoon na ko ci réewum France mu mel ni am na benn tête bu nga xamante ne amaloon noonu ko ak Emmanuel Macron am jotaay waxtaan bu am solo boo xam ne amoon na seen diggante. bu am solo bu am solo franchement euh, dama ne quand le système résiste à Ousmane Sonko pourquoi parce que Ousmane Sonko dafa toog at yu bëree bëree bëri. Mhm. muy résister contre un système wala face un système. Mhm. système bi di ko dóor euh, toroxal ko jàpp ko yóbbu yóbbu kaso. Mhm. et tout moom Ousmane Sonko ak son parti ñu dem ba daaneel système bi. donc ñoo waru leen jaaxal. que système boobu di résister wu contre ñoom. parce que amul benn système boo xam ne day dem abattoir rek comme ni fa nag di demee ne ren di leen mu jeex. Mhm. gañe nga leen ci élection. mais ce système la bul fàtte ne ay génération génération génération ñoo ko samp mhm. nga mën koo fekk dans tous les secteurs te dinañ ci ñëw ci wéer waxtaan wi da nga koy fekk ci médias yi fekk ko ci transport fekk ko ci industriel yi fekk ko ci euh, commerçant et tout mhm. système boobu soo ko bëggee daan ça ne en deux mois ni en un benn mandat sax doyul pour régler ko lu non parce que c'est c'est des générations bien avant indépendance ba léegi système boobu la fi tubaab bi fekk fexe ba utiliser ko coloniser euh, réew Afrique yu bari muy koon ne ba léegi ñu naan néocolonialisme ak tubaab yi nekk ci loolu ba léegi mais loolu il faut mu jeex te jeexal ko du ci benn mandat moo tax il faut que les Sénégalais Euh, en tout cas ñi am confiance ci Bassirou Diomaye fay il faudra qu'il soit très patient muy benn beneen bi mooy euh, man dama dem pour tontu ci li ngay laaj ci diggante Emmanuel Macron ak Bassirou Diomaye fay mhm. man dama dem Allemagne ci benn dëkk bu tudd Bonn mhm. am benn ministère bu ñu invité woon pour ay waxtaan mu tudd le ministère de la du développement et la coopération économique Allemagne naan ko BMZ Bonn fa la seen télévision benn France 24 par exemple Deutsche Welle foofu la nekk mhm. bi ñu demee ñu toog di waxtaan ñun matoon nañ juróom fukki journaliste ak juróom-ñett yoo xam ne ci réew Afrique yu bari lañ jógee ñi ëpp ci ñoom di ay responsable ci média yu ñu nekk mm-hmm. am na sax koo xam ne mooy diriger le quotidien national du Bénin muy la Nation bi ñu ñëwee toog am koo xam ne ci Allemagne moom la ñu dénk jëflante ci wàllu Allemagne ak euh, les pays francophones yi nekk Afrique li may wax nii euh, dafay permettre nga comprendre lu tax mooy wax ne daje Bassirou Diomaye Faye ak Emmanuel Macron am na solo. Mhm. bi ñu toogee di waxtaan waa ji mu ne euh, diggante Allemagne Union européenne en général mais Allemagne principalement mhm. ak réew Afrique francophonie ñoom dafa am gis-gis buñ ci am ak nu ñu bëgg diggante bi di ko demee ba pare mu wax. Mhm. du man de Allemagne moo ko wax il est le responsable de la coopération. mu ne ñun Allemagne dañoo gis suñu bopp ci discours le nouveau président du Sénégal. d'accord mu ne ñoom Allemagne. Mhm. dañoo gis seen bopp ci discours Bassirou Diomaye Faye le nouveau président du Sénégal c'est comme ça qu'il a dit. le nouveau le nouveau président du Sénégal. Mhm. li tax parce que nee na dafa gis ne le nouveau président du Sénégal dafa wax ne Sénégal dafa war a am souveraineté am souveraineté am ba pare mën a coopérer ak ñëpp. te ñoom loolu lañ gëm. Mhm. déggal wax bi mu waxaat ko une deuxième fois. tu es sénégalais tu es fier d'entendre ça parce que sa ay moroom africain yu bari ñoo fa toog tu es sénégalais tu es fier d'entendre ça mm. mu wax ko une deuxième fois ci biir waxtaan wi euh, suñu ay Aïssata Ndiaye laajaat ko la même question mm-hmm. mu répété waat ko une troisième fois ni ko ñu li ñu gis ñun Allemagne mm-hmm. mooy li président wu Sénégal bu bees bi bëgg et loolu pour man c'est important xam nga lu mu bëgg a tekki mm-hmm. mooy li nga xam ne moom la jeune africain yu bari bëgg ba tax ñu bari di gis seen bopp ci euh, Ousmane Sonko. Mm-hmm. dafa dajeek réew Europe yu bari ak àdduna bi en général gëm nañ ne foofu la coopération war a jëm sinon jàmm du am. Mm-hmm. soo dégloo ku mel ne euh, euh, Jean-Luc Mélenchon bi ñëwoon fii. Mm-hmm. wax fi wax ji bañ naan way dafi ñëw défendre góor jigéen. Mm-hmm. Euh, ay njuumte yu baram ci. Jean-Luc Mélenchon mooy quelqu'un boo xam ne moom kuy minorité mu défendre la. Mm-hmm. kuy minorité rek mu défendre buñ Sénégal gii tey dafa am ñoo xam ne dañ doon julli ñu fi jullee mu ñëw défendre moom minorité mooy affaire am kuy minorité lay défendre. mais boo dégloo Emmanuel Macron ci boppam. bi mu defee. waxtaanam ak Bassirou Diomaye Faye ba ñu génn am na benn communiqué boo xam ne moo sanctionné la rencontre dañ jox wax ñaari président yëpp li ñu d'accord mooy il faut ñu ñu renouveler les relations diggante France maa ngi doon Allemagne sax diggante France ak les pays africains principalement Sénégal parce que parce que tubaab yi mën nga leen a reprocher lu nekk nag mais ay nit yu muus lañ français yi dañu mës a comprendre depuis toujours que ni ñoom seen seen seen seen doole seen doole mënul dépendre dul di exploiter seen anciennes colonies yi bi François Hollande nekkee président wu France jéegoom yi njëkkoon a dox mooy tàggale diggante France ak pays africain yi mooy loolu tudde le cordon ombilical ci la commandité woon benn étude boo xam ne mi ngi ko confié benn waaye bu tudd Attal Jacques Attal je pense quand il a fait l'étude dafa leen wan ne France su bëggee continuer di nekk une puissance il faut mu dominer au moins cinquante ans encore ses anciennes colonies ñooñu ci lañ nekk di dox boobu ba léegi bi li nga xam ne moo moo nar a soppi te loolu euh, africains yi nañ ko santé le discours de Ousmane Sonko nañ ko santé le discours de Bassirou Diomaye Faye mhm. nañ ko santé tous les autres jeunes leaders yi nga xam ne ñoo nekk à travers le continent mhm. ñenn ñi ils ont le pouvoir par les armes mhm. ñeneen ñi ñi ngi ñi ngi dem pour jël ko euh, démocratiquement mais ce discours la les puissances occidentales muy France ak muy yeneen dañu dem ba comprendre que ni li jeunesse africaine bi bëgg ñoom mënuñu ci dërëm Mhm. mënuñu ci tus mënuñu ci naada seen intérêt mooy ñu fexe ba diggante réew yi ñuy jëflante diggante ay nawle enoo diggante ay dominé ak ay dominant mhm. moo tax d'ailleurs boo demee France fan yi dimanche danay dem élection mais est que xam nga ne ñun ñi sénégalais que je suis africain que je suis mhm. bari na ci ñun ñoo xam ne dañu tiit que le front national euh, euh le rassemblement jël le pouvoir en France man participer naa ci marche boo xam ne sama yoon newu ci nag parce que man ku ma tijjal pouvoir franc dëkkuma fa c'est pas un problème mais participer naa ci benn manifestation boo xam ne ay tubaab ñoo ko doon def contre le rassemblement national ñu ngi ko doon defee Toulon pourquoi parce que dama gis ne tubaab yooyu taxaw di def euh, manifestation contre le rassemblement national bu doon ñoom kese rassemblement national nekk fa du leen yàqal dara mais parce que dañoo comprendre que ni France li Jean-Luc Mélenchon wax bërki démb ci Montpellier ay français de souche c'est la France des peaux euh, peaux noires arab yi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu mooy la France tey jii boo déggee français yi am nañ ñu bari loolu daf ma jaaxal ci même les africains yi fay dund hmm. dañ naan ndokk na front national na rassemblement national gagné hmm. en France su ko defee ñu xam la ban njëriñ la leen africains yi amel ça veut dire quelque part que ni ni Emmanuel Macron comprendrait ba pare di dof doflu mm-hmm. li Bassirou Diomaye Faye di porter comme discours ni mu amee retentisment en Afrique noonu la amee retentissement dans les chancelleries occidentales parce que comprendre nañ que ni Ousmane Sonko finalement finalement. Mhm. ak Bassirou fay defu ñu dara lu dul porte un discours boo xam ne moom la africain yi bëgg dégg. Mhm. ce discours là tuddee ko un discours populiste c' est problème. Mhm. tuddee ko un discours souverainiste c' problème tuddee ko nu la neex mais li am solo mooy. et man j'ai passé presque huit jours avec des journalistes africains. amul kenn koo ci waxtaanal te du gis boppam ci lu li soo ko di wax. wala du gis boppam ci lu Bassirou Diomaye fay di wax. et loolu ça dépasse nos frontières et il faudrait que ñu xam ñun africains. Mhm. comment capitaliser sax pour que diggante Afrique. France bi nga colonisé woon ak les autres grandes nations du monde ñuy jëflante ci diggante ay nawle et noo ci diggante ku la noonoon bëgg ku noonoon ku nootoon sa ay maam mm. bëgg ko ne di la noon et là man moom laa jàng mm. ci tukkiwu Bassirou Diomaye Faye et puis voilà. même le président Bassirou Diomaye Faye a parlé de euh, coopération basée sur le respect mutuel oui absolument gis ci sa bopp mais bien sûr bien sûr et, et malheureusement Salma ñun mhm. euh, ñun journaliste nga xam ne ce ces débats là boo seetee médias occidentaux yi nga xam dañuy wax ci Afrique. ñoom débat yooyu la ñuy poser. ñun Sénégal au lieu de poser ce débat là def ko muy un ci suñu médias yi pour que ñu koy waxtaane pour que suñu mbokk baykat yi suñu mbokk euh, euh, informel bi ñeneen ñeneen xam dëgg dëgg dëgg gis-gis bi nga xam ne moom la gouvernement ci am ci yooyu. ñun dañuy ne ci débat wu jomaay kat ba mu fay dem yëre wolof la sol. est na faa dem sax war na faa dem. yére wolof la sol soxnaam saak bii la yor eh, jo eh, eh, gis ngeen ni muy doxee nangam ak nangam le plus important n'était pas ça le plus important était ailleurs man gis naa sax ñuy débat ci pourquoi xarañ loo di filmer Bassirou Diomaye Faye ma ne mais moo jë les gens de de de Pastef yiy jàppale le gouvernement la duñ dimbali gouvernement bi focus ci li nga xam ne mooy dëgg-dëgg njariñ li et bañ a nekk ci di li nga xam ne en réalité en réalité man loolu laa gëm ce sont des détails qui ne signifient qui ne signifient pas waaw ah, c'est des détails mais <laughs> comme ça peut signifier quelque chose Moustapha. non mais Assane ah, un ñaaw xarañ loo peut-être que. bu franchement du ma ci débat. waaw waaw je sais doo doo ci débat ça n'intéresse pas mais peut ne mën nañ de boo xamante ne du nekk rupture. non mais on sait que du du protocole Diomaye moo ko lijjanti. xam ah, nañ comment ça s'est passé. exactement xam na itinéraire bi jiitu à du moment où. parce que waxoon naa duma ci wax malheureusement euh, ma langue à fourcher ma j'ai sorti son nom. Mhm. mais à partir du moment où yow xam nga. waaw ñii seetaan ñoom ñëpp. xam nañ ne Bassirou Diomaye fay dugg jëlul. ku tudd ñaañ xarañ loo wala keneen mm-hmm. dugal ko ci avion yóbbu ko France ne ko deema deema sénabal comme ni ñu koy waxee mm-hmm. à de cet instant là mm-hmm. gis nga tout le reste nañ ko bàyyi ak le protocole de la présidence bu beneen yoonee dinañ ko gérer ak nañ ko mën a nga xam ne ñoo et dans les ambassades pour que ñu xam suuf président ñëwee ñan ñoo am droit jege ko ñoon ñoo amul droit jege ko de ce point de vue là le débat peut être intéressant mais pourquoi mu parle. mais pourquoi euh, man man pour man c'est des choses à évacuer très rapidement focus ci l'essentiel euh, la personne dont on parle mm. euh, nu mu tudd ñaaxarañ loo mais s'il a un visa qui lui permet d'aller en France quand il veut mais bu xamee ni président dafa dem mu dem man man j'ai voyagé avec lui euh, yàggul dara ci Air France muy muy muy ñibbisi fii. Mm. donc ça veut dire que ni day dem di ñëw donc ça c'est pas un problème. Mm-hmm. le protocole de la présidence ñooy am seen fulla boo xam ne. Mm. ba lëggee ñu ne lii kat dal nañu. Mm-hmm. gis nañ ne sénégalais yu bari ñu ngi koy dénoncer ba mu nar sax yàq. la communication bi ñu naroon a bi ñu bëggoon a jàll dans cette affaire là. bu mm. ëllëgatee bu mu am. ñu jàll ci leneen. waaw loolu la ah. moo ci moo ci am solo. Euh, gis nañ de mon moo ci am moo ci am solo waaw bi mu mm. demee aussi euh, dem jaar na ci l'ancien président Abdou Diouf. donc noo gisee loolu. pour euh, c'est une excellente chose. Mm. xam nga Salma Sénégal dafa am ay tradition yoo xam ne soo gisul. liy xew ci yenn réew africain yi da nga koy xeeb parce que ñun dafa nekk lu naturel ci ñun. Mm-hmm. mooy suñuy ancien président mën nañoo gisante mën nañoo nuyante mën nañoo waxtaan. Mm-hmm. am na am na réew Afrique yoo yooyu amu fa. Mm-hmm. moo tax président Macky sàll mii man bokkoon naa ci ñoo wax ne na fexe ba am une sorte honorable parce que ëllëg moo tax. tey jii lii Abdou Diouf dem ak def ak Diomaye gisuma ñu bari ñu ko dénoncé mais bu ko Diomaye demoon def ak Macky Sall. Mm. réew mi ni réew mi cool dana bari. pourquoi parce que li fi Macky Sall def la. alors lu fait ko mu dem seeti ko pour man c'est une bonne chose parce que. Mm-hmm. Abdou juuf dafa am bi ñu jubee élection présidentielle yi dafa benn communiqué bu ñu fi génnee ne moo ko bind moom ak lay Wade. Mm-hmm. mu defoon ci man fii laa ko waxee woon Abdou Diouf defoon ci benn démenti pour wax ne moom il n'a pas écrit. on li a proposer une une lettre mu mu signé ko. Mm-hmm. ñu jóge ci loolu bi Diomaye fay gañee bi parce que Bassirou Diomaye Faye gagné élection yi. avant ñu muy prêter serment. mu nekk fii ci hôtel bi ñu tuddee noonu Azalaï Azalaï moo ko Ousmane Sonko ne di liggéey ci wàllu gouvernement ak nu ñu koy taxawaleeg yooyu. ab mhm. Abdou yu dafa yónni ñaari doomam. d'accord ñu dem félicité ci jomaay ak Ousmane Sonko. Mhm. donc Diomaye également nga xam ne papaam moog Abdou Diouf a bokkoon parti. Mhm. mais su amee voyage yu mel noonu mu xam ne kii c'est l'ancien président du Sénégal mais day rafet mu dem seeti ko. maintenant coow yi ci juddu yépp lu ci bari amu ci. waxtaan wa 90 minutes la durée une heure lang ca mën a jàpp ak néew Abdou Diouf nee na ko euh, euh, monsieur le président vous avez battu mon record parce que Abdou Diouf il a été président à 45 ans Diomaye Faye a été président à 44 ans mu ne ko monsieur le président vous avez battu mon record Abdou euh, Diomaye fay ne ko monsieur le président les records sont faits pour être battus <laughs> waxtaan yu demee noonu la woon mm. ana njaboot ga ana nangam ak nangam ak nangam ñaanalante jàmm dem mm-hmm. maintenant toutes les interprétations yi ma gis yenn journaliste bëgg ko ci def mm-hmm. franchement wut histoire fu histoire amul la quoi. en tout cas alors euh, mu nekkoon lu am solo ba nekkoon benn point bu nga xamante ne je pense que intéressé woon na askanu Sénégal ñu doon ci posé ay questions euh, doon na baax ñu ànd ci benn décryptage donc euh, ci noonu Moustapha